waaw résistance ce n'est pas écrire résistance écrire daf ceeb nekk benn pas la ci benn pas mooy écrire xamal adduna bi na ngi da ngay résister loolu mooy le première pas nga wan ka ni ñi la bëgg a noot nga yëgal leen ka ni damay résister ñu xam ne ñu nga bind ko ñu bàyyi la xel étape bi ci topp mooy yow ci sa jëmbi bopp xam nga ni ay moo du loolu kese mooy résistance étape bi ci topp yow sa jëm bi bopp en intime conviction xam nga lan la donc maa ngi woo bépp sénégalais maa ngi woo bépp africain képp ku nangu dëgg képp ku bañ buumu buumu njaam buumu nooteel képp ku koy bañ maa ngi lay woo nga jël say responsabilité nga bañ dakkal mbuumu jaam dakkal nooteel gis ngeen ni sont ñu fi nekk di tudd ay député ay mbaam la ñu ce sont des gens qui ne méritent pas notre respect ce sont des gens qui ne méritent pas que ñu leen di woowee député ce sont des voyous ñu teg leen comme ay mercenaires comme ay mercenaires di leen defloo lii di leen def loo laa signé leen lii signé leen laa même su fekkee à base de tooñ la même su fekkee ne or la loi la ñoom dañ koy signé parce que seen maître lu mu bëgg loolu lañuy def seen maître li mu leen sant loolu la ñuy def est-ce que nag ñun dañuy toog nangu def ñu seen i jaam est-ce que ñun dañuy toog nangu ñu def ñu seeni i jaam est-ce que nun dañuy continuer nangu ñu def ñu seen i jaam dama ni heure bi jot na pour nekk jël responsabilité man li may wax je le dis de manière personnel loi moo ma may ma taxawal sama résistance et jël naa samay responsabilité taxawal sama résistance à partir de la minute où je vous parle sachez que ni man nit daf ki la maa ngi taxaw en tant que résistant je vais résister pour protéger mes droits. Je vais résister pour protéger mon pays. Je vais résister pour protéger mon drapeau. damay résister pour bañ ñu def ma jaam du ma jaamu kenn du ma nangoo nekk jaamu kenn kenn du ma foqatal li ma moom ci réew mi kenn du ko foqati seeni doom gënuñu samay doom seen yaay gënul sama yaay gënu leen ma bokk ci réew mi du ma seeni jaam te ragalu leen partir de la minute où je vous parle yéen ñi nga xamante si nii noonoo ngeen suñu drapeau jàppe naa leen ay ennemis yéen ñuy jalgati suñu yoon di ci def leen neex jàppe naa leen ay ennemis yéen ñi sakketoo suñu institution yi di ci buum ku leen neex à parti de la minute où je vous parle jàppe naa leen comme ay ennemis je vous déclare la guerre samay ennemis ngeen xamee leen ko noonu tous les politiciens corrompus a parti de la minute où je vous parle vous êtes mes Et je n'ai ni de respect, nii de pitié, ni de sympathie, ni d'estime envers mes ennemis. Mes ennemis veulent m'éliminer, je serai le premier à les éliminer si l'occasion se présente. Vous, les journalistes corrompus, je respecte tous les journalistes yi def seen liggéey tous les journalistes yu am éthique ak déontologie tous les journalistes yi sàmmonteeg ak ak yelleefu drapeau yi nga xamante si ni moom lañ leen moom la doomu aadama yi moom ak liñ liñ lu warloon teg drapeau bi tous ces journalistes je vous dis respect, honneur à vous. Tous les journalistes pourris, tous les médias pourris, toutes les personnes qui sont en train de jouer avec nos vies, à partir de maintenant, je vous déclare la guerre. Tous les médias, ils jouent avec le feu. Ils sont en train de jouer avec nos vies pour seen ay intérêt pour daaneel koo xamante si ni góor la góor la góor yàlla la liggéeykat la ku am dignité la ku sincère la ku honnête la musul jël suñu dërëm musul ñoo plongé dans le kawo bu ñu nekkee dans la famine c'est pas c'est pas à cause de lui bu suñu doom yi di dee ci géej gi c'est pas à cause de lui toutes ces personnes yi nga xamante si nii fay nañ leen toutes ces personnes yi nga xamante si nii haine moo leen habité ñu dëgmal ne ñoom ñëpp dinañ jël seen xalima ñeneen ñi dinañ jël seen jumtuwaay di ko fenal di ko fenal matin midi soir tous ces médias tous ces journalistes à la minute où Sachez que vous êtes mes ennemis et je n'ai aucun respect ni de pitié envers mes ennemis. Vous voulez me tuer, vous voulez brûler notre pays, vous voulez que ça part en couille. Vous serez les premiers en payer le prix. Tous ces Bougouma Saga, tous ces gens, ils jouent avec la vie des Sénégalais. Parce que dañ leen ceebal seen poche parce que dañu ne ku ànd ak nguur le la neex defal parce que dañu ne am nañ protection mucc nañ ba tax na ñuy toog ci télé yi di fenn ñuy jël seen médias yi di di di di di enfoncer benn digne fils du pays di ko fenal ñoom ñëpp jël seen moyens yi am di ko fenal di ko jël ko ne ko yow coûte que coûte dana dafa dugg Sénégal yi bañ la toutes ces personnes yi ñuy jouer benn rôle yi nga xamante si nii ñoo ngi jouer benn rôle boo xamante si nii mën na taal réew mi mën na jaxasu Sénégal mën na yàq suñu avenir bépp nit bu nekk di dox ci loolu xamal ni à partir de la minute où je tiens ce téléphone et que je te parle tu es mon ennemi déclaré